suñu bëree seen ñaari combat yi nu am au mois de juillet début de saison l'année prochaine cest à saison bi su ubbee rek ay mois de janvier février ba jamono yooyu danañu jàpp date bi avant boobu danañu jàpp date bi nga xam ne ci la ñuy bëri. sa diggante ak Balla Gaye numéro de duggoon nga kër Double Less am loo fa def war fa dugaat bi yoon ah. Pikine Guédiawaye <laughs> Pikine Guédiawaye derby bi dellusiwaat. jërëjëf jërëjëf di nuyu ñu ma toogal ñu ma bokkal jataay bi. Mhm. di nuyu sama papa garçon di ko ziar bu baax di nuyu champion bi Balla ak sama père Babou di nuyu ñu ma àndal muy sama papa Bourkhane ak Abdou Kandji di nuyu Aziz ak presse bi yëpp ak man ñi ma àndal ñëw fii comme ni nga ko waxee rek ñu ngi sant yàlla bu baax nag di baalu ñëpp ci weeru koor yi di ñaan ñu dugg dugg ci ak bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah bi alamin waaw sant yàlla suñu papa garçon taxawal na suma combat ak Balla sa combat ak la wax naa ko léegi danga nga dugg kër suñu per Double Less daan rakkam. mu ñëw furli ko. waaw parce que moom tam dafa dugg Pikine daan suma ay mag moom keroog bu muy bëreeg Boy Seye maa ngi fàttaliku nekkul ne dañoo war a bëre moo tax ma wax ko waaye su boobu dafa daan Boy Seye ma am ci lu ma métti lool. parce que Boy Seye parce que Boy Seye suma moo ko doon entraîné Père Dugal moo yoroon Pikine mbooloo temps yooyu. ba may dem maa ngi fàttaliku mbër dañ ma dugal seen suuf tànk yi parce que bu ñu compté dañuy ëpp. ba ma dugg ci làmb ji yàlla dogal mu daan boosey ma am lu ma métti ba parce que boosey dafa ma jege woon nekk suma gënaa benn saa su ma pare woon entraînement su mooy ma téeméer dama jëlal cere donc ku mel noonu boo gungee làmb ñu daan alors mu nekkoon nag euh, Balla Gaye ak euh, booy Niang ci seen euh, daje bi signature beeg yooyu mais bala ñooy jox pap Alioune dañuy nuyu nag suñu beneen naataango bi nga xam ne mi ngi doog a yegsi ci plateau bi muy Abdoulaye Bopp Abdoulaye Bopp ñu ngi lay di la ziar di la tatagal ci salon d'honneur jërëjëf euh, Mouhamadou bi tey maa ngi lay nuyu euh, di la jaajëfal am mbégte ci salon d'honneur jaajëfal aussi sama jigéen euh, Fabel nuyu itamit sama naataango yi ma bokkal ci plateau bi nuyu itamit kilifa gi di Gaston Mbengue bàyyi yitte yeeg soxla yi ñëw wuyu si ñu ñu am ci mbégte lool ci salon d'honneur bi lu mu bindoo ba ba léegi waxtaan gi jax na tàng na waaye xam-xam génn na ba tax na am nañ ci mbégte incha allah ci kanam tuuti daañu ñëw ak actualité euh, semaine bi. Mhm. Euh, les faits saillants de l' actualité de la semaine. incha allah mhm. daañu ko euh, faram-fàcceeg askan wi ñu dundaat li joto na xew. Mhm. ci semaine gi laata altine ëllëg di nuyoo si daanaka ñu ngi ci altine. jërëjëf Abdoulaye Bab comme ni mu leen ko waxee noonu lay demee ci kanam tuuti rek dina ñëw ci la gën a ci actualité ci semaine bi. na ci ñëw mais d' autant plus mi ngi ci plateau bi mi ngi ci débat bi Pape dañuy bàyyi dernière question bi yàgg kii su ko defee nag. ñu xaw a génn tuuti làmb dugg politique. Mhm. ayca Pape. am na solo jox koo jokkoo ab Ablaye Bopp kon moom it ñu koy nuyu. muy sunu naataango ñu bokk nekk. Fatou Bar Faktal la lépp rafet. séeréer kaajeeg jom kaajeeg dignité. kaajeeg fulaak fayda. ñu bàyyi xel Ousmane Sène. Mhm. Euh, fi ñuy des mooy combat bi nga xamante ni taxaw na olof yi di faral di ko wax mbër du laloo day màgg daan garab ci kaw lay fekkante. Boy Niang 2 li ko moy mu war a bëri ak Balla Gaye 2 moom it xale la ñëw ci yoonam. bokk ci xale yi nga xam ne yaakaaru làmb lañu am ay jéego yoo xam ni def na ko Boy Niang gis ngeen ku bëre naa ku mel ni guy Gui Boy Niang bëre naa ku mel ni Baye Mandione yàgg doon bëgg ak bëreek Balla gay 2 Sa Thiès nekkoon ci bunt bi mu bëreek moom yàlla defal ko li gën ci moom mu am ndam keroog it Sa Thiès ay mbokkam la nga ko yóbbu ne ko gàcce ngaalaama mbër bi nga ñëwee ñëw nga ni nga daan ñëwee Balla gay 2 it da nga naan gàcce ngaalaama champion li ko ay magam defaloon defal na ko tey rakkam ndax lii la ko moom Moustapha Gueye Tigre de Fass defaloon lii la ko ndaw Ndao Tyson defaloon lii la ko Yaxya Diop Yékini defaloon tey ji moom it tàllal na loxo rakkam muy booy Niang ñu war a bëri loolu it day loo xam ni làmb soxla na ko dafay suqali làmb mbër yi bëri seen biir waaye ñi ci kawit bàyyi xel mbër yi nga xamante ni ñu ngi def ay pas ñu jël leen bëri ak ñoom muy combat boo xam ne nag kombaa bu war a mën a neex la dër bi lay doon diggante Pikine ak Géejawaay ñu yaakaar bu baax it dina bokk ci tàkkusaan yi nga xam ni dina gën a suqaliwaat làmb mhm. Mhm. ñëw ci Gaston waaye it laataa loolu ñuy nuyu sunu baay Hadj Mansour Mbaye di ko ñaanal yàlla guddal fanam sunu kilifa la féete nu fu bari dama dem këram waxtaan ak moom mu fat ma ci biir dolli ma teral ma yàpp ma kon papa yàlla yàlla guddal sa fan ma càkk waaw kon ñu moom bu baax baax ñu ngi koy fay ñu ngi koy fay su ma nijaay Gaston arène nationale bu nu ko waxee luy suqali làmb la làmbit dañ koy wax yàgg na noo dem ci béréb yu bari ñu nu fay dàq tey ji muy sunu moomeelu bopp ñu gis bi nu fa demee donte bi ñuy soog a dem euh, am na nu nu fa toogee woon waaye ginnaaw ñi gën di dem jikko yaa ngi gën a feeñ li ñaan jikko du gën a yaan dem nañu bay gis xale yi di dajji siège yu nu ni mel promoteur yi bu ñu fay tëgg dañuy joxe caution lu ni mel yàlla na leen di yàqal ak it tey jii en tant que porteur de voix bokk ci njabootu làmb loo leen di dolli ngir ñu mën ko ñogal.